nekkuñu ci milieu bi nga xam ne dañ koy fajee ñu gis ki nga xam ne tey seytaane da koo jàpp muy koo xam ne dafa xam dara. Mhm. am na ñoo xam ne tey bu ñu nekkee à mën nañ justifier ñu lu may wax. effectivement am na ñoo xam ne bu ñu duggee à l'antenne waxal yàlla dinañ xam ne borom bët bu bon am na muy dëmm lekk na nit yuuxu na jàpp na dóor nañ ko mu ne maa lekk diw. Mhm. nit jëfrumat ba tàyyi ci koñ da di léegi dafa nekk loo xam ne du nekkul lu fréquent parce que ñenn ñi. dañuy ñëw fii dëkkuñu fi dañuy ñëw à ndakaar di fi def naka su dul noonu te du dox. Mhm. fii lëg daaw day sàmm ndakaaru ku fi dugg def naka su dul noonu da ngay feeñ. Mhm. te li may wax sama mbokk lébu yi xam nañ li may wax. Mhm. moo tax képp koo xam ne tey dangaa jege koo xam ne dafa am rab comme ni ko wolof di waxee nga nekk ku xam dara bala ngaa xef fi nga toog mu commencé sab di yuux parce que mi ngi mel ni alarme bu déclenché da ngay gis ci saa si mu agité wu. moo tax ñenn ñi ñemewuñu. tey Dakar di fi def yoo xam ne wala ñuy manifester wala ñu fiy def kenn dara parce que fii dëkkub lébu la Ndakaaru boo fi defee naka su noonu dangay weeru. moo tax nañuy gëm ne mbirum dëmm am na maire bi nag kantaa moom la moomu la moom la concerné li jaaxal Ndakaaru Njaay li jaaxal Sénégal yépp mooy la ko yéegal ci kaw dugg na nag justifié wu na. loolu am na ci raison parce que nit fi ngay toog nga toog ñépp gis la nga yeewoo ci bërëb loolu dañuy poser question lan moo la fa yóbbu. Mhm. alors asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum. dindi haut-parleur bi nga taalaat ko. asalaamaaleykum. moom bu ñu mënee woowaat. ci kanam xam naa dafa coupé. moo tax Chérif. Mhm. àdduna dafa gudd tànk. nit lu mu xam du ko ragal. Mhm. man samay doom nee naa la ñu ci gën bari dañ ñun ay xeetu ci balo la ñun lool jaaxal ñu. Mhm. lébu loolu jaaxal nit nekk naam nekkuñu boo duggee ci tuur léegi def li ngay def borom day sab day wax. Mm-hmm. parce que ñoom ñemewuñu borom rab parce que subitement boo leen jegee rek sa karaw yaram day taxaw dangay ngay wu. moo tax heure bu ñu duggee nee naa nit dugg na sama kër ba tàyyi toog dootu ànd teg sagoom parce que ba nga fa fekkee bu ñu la cuuraayee wala nga fekk fa garab yow dootoo nekkati. Mm-hmm. il faut nga toog wax lan moo la fa indi. moo tax am na ci yoo xamante ni ñenn ñi bu ñu amee yëg-yëg seen yaram wala am na ci yoo xam ne tey nit mu ngi leen koy def di leen topp am na ñoo xam ne tey dañ leen di topp ba bitim réew. Mhm. ñii ñi ngi fii di feebar di tëdd ak a jóg da ngay dem di xooli sa yaram du scanner. Chérif nekkul loo xamante ne radiologie wala nga dem dafi analyse mu négatif doo gis dara te saa yoo xëy yëg lu lay metti heure boo tëddee guddi doo mën a jóg heure boo tëddee guddi nga yëg ku bës wala mu lay xoj. Mhm. wala nga yéeg lu génn ci yow wala lu dugg ci yow moo tax am na ci loo xam ne liñ naan nit lu mu doxul wala gisu ko. Mhm. bu ko neexee mu yomb di ko weddi mais ñoom ku ci nekk boo bokkee ci benn famille nga gis loo xam ne mosoo koo gis am nga droit nga ñëw ne man de lii mosuma koo gis wala lii xaw ma ko loolu ça existe à tout moment nit koo xam ne day dindi tuuma ci boppam am na ci droit mais kantaa nekkoot nekkoot man gis naa ko mu doon ba borom avion na ma man moom laa. Mhm. yaa ngi dégg. tey ñëpp am na vidéo yoo xam ne Ndoye Bane doon na ko passé à rajo di ko waxtaane ay nit di ooye ne la man moom laa kon am na ci loo xam ne loo dox ba ba gisoo ko wala xamoo ko rek bul weddi ne am na mm-hmm. bul ne tam jël koo xamante ne xamoo ko xamaatoo nga ko tuumaal am na ñoo xam ne dox nañ fii sax ndakaaru xaaju guddi jommi sayu matt dàq leen man sama bët teg naa ko ci dox ci digg àll ba dara soppaliku golo magum jëmm nga jàpp musu go gen nga mu nekk musóor shérif. nit yàgg naa gis tey sama jëkkëri mag Cees yàgg naa la ko muy faj moom tamit comme daf ci daan yëngu tey yàlla na ko yàlla xare àjjana buubu saar mhm. yaa ngi dégg nit toog ànd ak doomam tey ñu jàmbat xale bi feebar nga ñëw wala magum jëmm ñu teg ko ci blancar mu nekk ci diggante dund ak dee foo denc xol bi mun a maa ngi ko denc ca ca ca ñàmbi ya wala maa ngi ko denc ci ginnaaw Dakar ya demal jëli xol bi mu ne wuy maa ngi koy dem jëli mu dóor ko. Mm-hmm. te ki muy dóor ki jàpp xale bi la. xale bi il est nekk te bu yeew woon moom a na lu bari du ko nettal mais bu xasee ba borom dugg daf naan ko nu jàpp kan moo la téye mu ne diw moom moo ma jàpp diw sap ne man maa ko jàpp maa ko def nii maa def nii xolam maa ko jàpp fii. Mm-hmm. tey rek tout récemment seetaan naa benn vidéo ay magum jëmm ci dëkku ñàkk yi nekk ci cimetière jàmbur tiim di def yëfu seytaane. yëkkati seen i sër di def naka su dul noonu boo xam ne da ngay xam ne ñii parce que cimetière yi dafa am caméra surveillance. Mhm. ay 4 heures du matin trois heures et demi ay ñaari mag màgget yu ne comm comm waral dugg ci ay bàmmeel di aj seeni i sër di fecc tiim bàmmeel bi def seen rituel moo tax am na ci loo xam ne nañu bàyyi dara am naam amul. Mhm. diw dëmm la du dëmm. maire bi moom kenn du ko tuumaal ndax tuumaal ni dafa fort. effectivement moom ci boppam waaw moom moo mën a justifier yëfam comme mhm. sapeur yi ñëw nañ ne auteur bi kan ñoom mënuñ cee dugg. Mhm. jàppale nañ ko ba ñu génn dégg nañ tam ku naan kan nga fiy seet ak ban xale nga fi doon wër yooyu yëpp jot na fee am ba nga xamante ni loolu dañ koy topp di ko topp ba benn moment moom mu jugé ne nécessaire na. Mm-hmm. war na mën a ñëw génnal boppam war na ko ñëw seede mm-hmm. mais ñun de man sam personnellement képp koo xam ne dangay laam-laamee yow wala nga wóolu sa bopp naan moom nga am du moom boo ñëwee sama kër dootoo ko defaat ku ñëw sa kër euh, wala mu wala. ci numéro téléphone mm-hmm. pour yow nga doon dara nga ne damay essayer naan damay ñëw ci ay sat wala ñëwoo di nga xam ndax kan ngay digaaleel wala déedéet. képp koo xam ne ndax am nga loo xam ne mu ne muy nekk sa jafe-jafe sa ga sa gàllankoor sa yaram. yow ngay def di seet ba sonn soo dara boo ñëwee di nga xam ne mu yow li la jàpp du du neenu kese. Mm-hmm. parce que am na ci yoo xam ne dañ koy jaawale liggéey te du liggéey seytaane mooy dugg sa yaram di la jàpp partout nga yëg sa yaram métti partout nga am loo xam ne day déplacé wul sa yaram loo xam te yow da nga koy yëg. wax mhm. rek nit ñi mhm. bu ñu soxlaa lu jëm ci loolu. wala ñu mhm. am lu ñu yëg seen yaram loo xam ne. analyse du ko feeñal. loo xamante ni tey bilan feeñalu ko rajo feeñalu ko bu ñu jegesee dinañ xam ne mbiru seytaane mu ngi ci ñoom. mbiru dëmm comme ni ñu koy waxee day topp nit. da lay topp di la ronger da lay topp di la def loo xam ne xëy na. yow doo xam lan la te doo xam fan ngay jublu bu ñu amee jubluwaay muy bitim réew fii. Mhm. dañ leen jox béjjén mu takk ko incha allah dañ leen jox cuuraay. Mhm. ñu di ko jëfandikoo. ndax euh, bu ñu weddi ni lii am na parce que mu ngi dox fii am na ñoo xam mu ngi leen di jàpp ñu am na ñoo xam ne dañuy todd hôpital. Mhm. di di def ay rajo di dem ak ñëw soit seen tànk wala seen biir. wala seen seen n'importe quoi seen bopp di metti di bëgg toj te duñu xam lan la fekk seytaane topp na leen. dëmm dina la jege comme ni mu wax nee na seen famille dañuy lekk di lekk ba mu des seen papa. Mhm. ñu dawale seen papa ci Chérif Khatab dara kon am na ci loo xam ne ñoom bu ñu bëggee umpale moom la wala du moom bu ñu jegee bu ñu leen joxee cuuraay wala nga njort sa dëkkandoo da koo doon boo ko cuuraayee comme ni mu wax moom keroog jàmmam jeex na day génn wala yow nga génn. Mhm. parce que cuuraay am na bu ñu jegee dinañu leen ko jox ku ci njort wala koo xam ne da nga ci am xel ñaar boo ñëwee bërki démb rek benn femme woon na ma ne ma. ki mu bokkal benn restaurant jour bi mu ndaw si bitim réew la nekk jour bi mu cuuraayee ndaw si dafa lëmbe woon fi ñu dëkk ñoo bokk benn kër keroog mu jot cuuraay boobu cuuraay ko fu fa la ndaw si tàggoo ne day dem mu ne ma sama patron bi ma nekkal mu ne leen ndaw si da leen yàgg sonal mais keroog ñu cuuraay foofu fa la ndaw si takkee bagaasam ne du fa yenn du fa fanaan mm-hmm. moo tax am na ci loo xam ne booy laam-laamee am na wala amul am na ñoo xam ne dañuy sës ci yow suba ngoon guddeeg bëccëg di ñëw ci yow bis boo leen cuuraayee bu keroogee loo leen xaritoo xaritoo bu bu dee cinquante milliards nga leen amel dinañ la ko bàyyee dem ñibbi. Mhm. dañ lay bàyyi tranquillement ñoom ñooy doon sa noon dañ la koy woon carrément dootuñ bëggat sa kër dara donc nit ñi bu ñu sàgganee seen bopp. asaka mhm. ndakaaru la dañuy jaay tubaab walla ñuy foog fii Dakar la ñoom xamuñu loo xam ne. parce que dañuy jaay affaire intellectuelle foog ne xam nañu lépp àdduna fii la yem dakaar la commencé fii la yem déedéet Dakar àdd ni naan àdduna yemul Sénégal kese àdduna yemul Dakar kese yaa les villages yaa du tout te mm. fii dëkkub dox daje kenn xamul kenn parfois sax nga yor ab bon wala sab liggéeyukaay wala koo xam ne da ngay liggéey wala liggéey rek boole leen mm-hmm. am na koo xam ne Paris la jóge mm-hmm. béjjënam pare na boo xam ne dañ ko ko war a defal koo xam ne immeuble rek lañ bokk heure bu dajeek moom ne ko ndax deewagoo te dëkk ñu sax ci benn kër. Mhm. kii rez-de-chaussée kii sixième. ndaw si fi mu nekk nii dafa sonn ñibbisi na ndakaar ñu ngi koy defar béjjënam yaa ngi dégg heure bu ko gisee ne ko yaa ngi liggéey ba tey deewagoo parce que moom xam na li mu def ndaw si ba ndaw si ñëw Sénégal. Mhm. fa toogee dina ko dina ko def loo xam ne ay mbokkam nañ ko jëli ci kees. parce que am na buñ laxasee ba topp nenn la bu njëkk ba seeni mbokk rek la ñuy di def di def di def def. mais léegi dañuy tooñ ba tooñ jàmbur. te boo mhm. tooñee koo xam ne bokk leen rek musiba dina la dal. tout te bu delloo pare nag loolu dina ute torop ak ñëwam bi nga xam ne nekk gam fa nekk buñ ko defee ba defaral ko liñ ko defal incha allah. ragal naa bu delloo Paris ndaw si dina wàcc immeuble bi wala moom mu wàcc dem. alors numéro téléphone bi euh, ñu laa joxe. waaw ci li ñuy bëgg a jëfandikoo seen bopp. Mhm. muy wàllu dëmm wàllu seen aajo bopp seen wàllu liggéey doxul. wala mhm. dañu bëgg këyit wala dara bu ñuy ooy ci 77 376 31 52. li affiché ci écran bi heure bu ñu ci woowee rek muy ci émission bi ak lu ñu mën soxla rek ci Feeling Dakar dinañ leen koo jëfal.